waaw man de li ma ciy xaar mooy que bon élection yi d'abord euh, dund nañ ko ci jàmm heureusement que amul vraiment à part quelques euh, morts d'hommes euh, yu ñu yu ñu yu ñu yu xam nga ci quelque part rek mais dans son ensemble dund nañ ko ci jàmm ak salaam quoi pratiquement mënoon na fi mënoon nañ fi mënoon na fi gën a graaw comme ñu ko doon xalaate mais yalla wis na ci ndox mu sedd quoi ba mu nekk suñ ginnaaw et puis euh, di ñaanal suñu président yalla nako euh deuxième mandat bi jik et puis lepp luñ ci xaar muy ay réalisation yalla defal ko ci ndam donc loolu lañ euh et puis di xaar aussi vraiment ben gouvernement bu de rupture nak quoi gouvernement de rupture boo xamante ne bii dina taxaw ci soxlay askan wi bu baax a baax a baax a baax parce que ñu bëri du mal rek même normalement bu fekkente ne bii euh, renseigné nañ ko bu baax xam nañ ne ko ñu bëri ñaxtu nañ nombre de ministres yi nga xamante ne bii am nañ ko te te te du loolu lañu wax xaaroon ci moom ci ci premier mandat bi euh, soxla euh, askan wi ci wàllu faj. xam nga euh, ci wàllu njàng euh, yooyu yëpp daal sañoon bu ñu sañoon euh, gouvernement bi dina ci taxaw bu baax ak sama secteur bi ma nekk man aussi muy culture nga xam ne dañ ko laisser en rade dafa mel ni en général Sénégal ñoom culture en fait daf leen soxal daf leen soxalul trop te culture quand même ah facteur de développement bu am solo la buñ ñu ko dooleelee organiser ko. ministre de la culture boo xamante ne bii dafay nekk day déglu day déglu. Oh, ay ñu ñu nous nous de di ba paré di leen accompagner accompagner leen moy il faut pas que ñuy nous di jël ay individualité ay nit di leen jox ay il faut que ñu xol projet yi nga projets bi mom ay projet yu yo nous bi soutenir ko quoi euh, c'est-à-dire il faut qu'on organise le secteur organiser ko ba artiste bi su ñaxé ñaxam am ci lim ci wara am c'est-à-dire au lieu de ngay ngay ngay ngay japp artiste bi diko dimbalé individuellement xama fexé ba secteur bi am organisation ba bo ligéyé def li nga wara def ko jot li nga wara jot waaw ba en fait lool lool mom c'est c'est luñu luñu xam la lu ñepp xam la Euh, politique moom peut-être ku koy dem di ko def ce choix la yow yaa choisir mais on ne doit pas mélanger les choses quoi sooy dem ngay dem di defi politique nga def politique mais ñi nga xamante ne bi lu ñëpp bokk la tamit waruñ ko jël di ko neexale ay clientèle euh, clientèle politique quoi dañu war a ko teg si yoon de telle sorte que mu bañ a am xaaj ak seen ki nga xamante ne bii acteur euh, culturel la bu organiser benn affaire benn euh, événement boo xamante ne bii mérité nañu soutenir ko ñu te ñu xool dossier vraiment mu jaar yoon ñu méngoo na ak normes yi tax ñu war ko mën a euh, subventionné wala ñu soutenir ko ñu soutenir ko te bàyyi kumba am ndey bi ak kumba amul ndey bi man je crois que loolu du defar dara quoi. waaw cest dire loolu nag moom mooy problème mooy suñu problème ñun artistes yi c'est-à-dire le fait de de. de, de, de s'unir parce que c'est un peu compliqué quand même c'est que un peu compliqué parce que buñ xolé taw deug rek amna fi ay mag bi ñi ngi fi ñi ngi président ci secteur bi xam nañ problème yi artistes di di man est-ce que mag ñoñu ñu ngi problème euh, euh suñ soxla quoi euh, secondo moy que amna fi AMS man AMS la bokk quoi am na fi IAM IAM tamit nekk naa fa membre c'est-à-dire man je pour que nit yi booloo xam nga cest dire nit ñi tamit mënu leen dimbale ci biir xaajaloo cest dire kenn ku ci mer rek créer benn mouvement xam nga euh, après ñenn topp la cest dire finalement doo xam kan mooy interlocuteur bi ñu war a waxal aussi quoi xam nga il faut que ñu euh, wàññi égo bi kenn ku ci nekk jiital intérêt euh, général voilà su su amee par exemple ñu am ben instance bo xamante bi fa lañuy dajé bu amé lu ci nakari bu assemblée générale jotee ñu génne fa ñoñu parce que ay vote ño fay tek ñoñu ah ay vote ño fay tek par exemple man c'est ce que j'avais proposé même euh, au sein de de l'AMS bi fi nekké di ñaxtu AMS liggéeyul liggéey deful li deful la dama mbolo ñoy yëkkati bu ñu yëkkatee génne fa ñu jéma doxal tek affaire yi que mo gën di créer benen mouvement à côté bo xamanteni après ça na fait que nous diviser et la division ça nous arrange pas. bon ñu ngi repartir ah hein, ñu ngi repartir comme ni ni BSDA don répartir pas plus tard que ce matin je suis allé là-bas j'ai j'ai reçu sama xaalis jotna sama xaalis alhamdoulillah quoi mais man je parle pas sumay wax. parce que en fait man xaaruma BSDA pour dund am na ñoo xamante ni bi peut-être ñu ñoo ma gën a ñoo ma ko gën a soxla ci BSDA parce que man en dehors de BSDA lu muy fay am naa peut-être yeneen source de revenu yu may permettre may mais ñi nga xamante ne bi dañ ci wekku il faut que ñu jéem a fexe ba ñooñ ñu leen di bàyyi xel et ñuy fexe ba répartition bi muy jaar yoon lu maximum nu mu gën a transparent possible ñu koy defee noonu ba pare boole ci ñi nga xamante ne bi mooy média yi ñi nga xam ne dañuy diffu dañuy jël ay œuvre artistes yi di ko diffuser ñuy fay ñuy fexe ba état jàppale SODAV à ce que ñu mun a collecter assez d' argent pour mën ko redistribuer euh, euh, ba léegi affaire droit voisin yi mi ngi traîner parce que y a des ay am na ay affaire ay quelques lois yoo xam ne war nañ ko voter encore pour li nga xamanteni moy jëm ci ay affaire copie privée yoy yep côté finance pour ñu mën ko collecter pour que xaalis bi gën sakkan pour ñu mën ko mëna redistribuer yoy yep ay lenteur la euh, tout ce qui ak logiciel bi nga xamanteni peut-être moom moo war distribuer xam nga ñu ngi ci jamono ju bees yoo xamante ne bii euh, waratuñu tok sax fo xamanteni bi euh ay nit ñoy répartir ab logiciel mo wara ci dëkk yu développé yëpp logiciel mooy répartir kenn ku ci nekk da ngay am sa compte bancaire boo jot bu xaalis bi ñëwee day dem direct dañ la koy viréel t'as besoin même de te déplacer di dem ay BCA pour di di di rang ñu lay jox sa xaalis quoi foofu la ñu war a nekk te démarche yooyu am ñi ngi ci naam ci li ma xam mais j'ai vu que am na ay lenteur ba léegi quoi war nañu gën a gaawal affaire yi pour soulager euh, souffrance su artistes yi quoi. <laughs> yow yow xam ba pare bëgg di xam ba quoi.

def ngandi concert djurbel bu mag invité wa Mbacke ñu ñëw djurbel comme Mbacke ak djurbel c'est c'est 45 km kilomètres maximum xam donc mën nañ déplacer wu ñu dem fofu defar defar def ba mu baax quoi mais Mbacke moom nañ mako ko rek <laughs> jaajëf voilà quoi donc euh, kontaan naa trop ci dalal leen et puis euh, vous m'avez donné l'occasion de d'échanger ak ñi nga xamante ne bii ñooy mbokk internet yi wax leen peut-être euh, touti kumpa ci li nga xamante ne peut-être ñoom xamuñ ko woon ci sama ci man quoi di leen jaajëfal ci visite bi quoi.